ba tey ñu ngi ci wërum section yi yàlla dogal tey jii nañu toog ak section bi nga xam mooy section Dakar bi fas yéene laajte ki nga xamante ni moom lañ seqee waxtaan wi ginnaaw loolu nag dañ koy jox mu nuyoo. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Cheikh Mbacke Seck nekk secteur administratif Dakar. Cheikh Mbacke comme noonu nga ko waxee rek yaay secteur administratif Dakar section Dakar waaye tamit dañoo bëgg a xam ban yëg ngeen am ci màggal ak ban wàccuwaay ngeen ci waaw yëg-yëg bi ñu ci am nag yëg-yëg bu kawe la ndaxte am nañu habitude di ko màggal ca daan ko màggal ca Ndakaaru daan ko def mais ren dafa gën a kawe sunu njort ndaxte liñ ci yéene yëpp dafa am maanaam bennoo bi Serigne Cheikh santaane woon tey ji permettre nañu ko ñu nekk at yeneen section ñëw ànd ak mbooloo mi war a màggal bis bi mu doon bis boo xam dafa am solo ci dund section bi benn muy Eh, bisu magal la bisu ñaan la bisu dellowaan juko serigne Cheikh eh, ben ñaarel bi aussi daf ñu permettre ñu mëna defaat eh, li li li tubab di wax revue de troupe dina tax wilaay section yépp daje ñu dal di dem ci ki nga xam mo fi khalifa serigne Cheikh delloowaat ko ñukal yeesalaat suñu andat bu ngir gën nyongal ñoŋal liggéey bi nga xam ni liggéeyub yalla la liggéey bi yalla nak mom buñ koy def nekul yu yomb. lépp loo xam ne daal war nañ koo mën a dajale pour mën a atteindre suñuy objectif bàyyiwuñ ko moo di teel nañoo jóg dajale nañ mbooloo mi ba ñu ñëw teewee lii xam ne tey moom bisu yeesu la bisu delloo njukkal Serigne Cheikh bisu ñaanal ko fa mu nekk yàlla yokk ay leeral at Serigne Mbacke Mouhamed at Serigne Abdou Fatah at mbooloo mi yëpp santaat yàlla santaat bi ñaan yàlla fekkee ko ay ati ati at si barke Serigne Touba ba lii mu ñu bàyyil duñ ko mujjee mu réer. Euh, di leen ziar bu baax ci bis bi. di rafetlu liggéey bi nga xam ne euh, yéen yor presse bi yéen a ngi koy def te di ko def ci section yi euh, ñun section Kaolack Mor Seye Ndiaye mooy nuyoog yéen di président wilaya bu Kaolack waaye ànd ko section bi yëpp ànd ak Serigne Gamou Diop mi nga xam ne mooy président section ak euh, lenn ci wilaya femme bi waaye ak lenn ci bureau secrétaire exécutif bu section bu Kaolack yi ànd nañ ñëw ci bisub tey bi nga xam ne mooy bisub sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. jërëjëf yàlla dogal ñu ngi fii ci kaw ci section Kaolack bi waaye la màggal gi ak ban yëg-yëg la am ci bisu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. ah jërëjëf ku baax ndax euh, section Kaolack moom kenn ku ne xam na leen màggal ak ak màggaluk sëriñ Cheikh gi. Eh, ci yàgg ay at yoo xam ne dañ koy waaj di ko màggal si ren jiit noonu rek lañ ko waajee xam ne bis boo xam ne la bis bu rëy a ci ñun la eh, bis boo xam ne la bisub ñaanal la sunu jàmbaar jooju nga xam ne liggéey bu yàlla bi nga xam ne moom lañ nekk di ci liggéeyal sunu borom sunu borom jaarale ko ci moom muy liggéey bu rëy boo xam ne liggéeyul islaam bi yëpp la ku toll noonu nag eh, bis bi nga xam ne moom lay dem ci sunu borom mu koy joxe xéewalam dañoo jàpp ne képp koo xam ne ñëw nga ca euh, xéewal yooyu du la mooy ñu waaj ko nag ak waajtaay wu rëy ak ak pas-pas ànd kook jëwriñ yi euh, ñëw xëyee Kawlax niñ ko daan defee euh, ñu dalal ñu fii kër Adja Bomba fi ñu daan dalal ñu dal fi ànd kook section bi waaye daal am ci mbégte mu rëy rëy fekk si waa tayif ñoom ñu am am am ci waccay bu am solo bo xamni ñoom ñong ko ci wajal ñu fasiyene ko and ak ñoom inshallah allah dal daal wajé euh di di di sante bu baax nak ni euh, dalé ci président section bi ba ci mbolé membre yi ndax it wax dëgg yalla sun bis bobu di lu gis nañ li nga xam ne lañ ci jappé daw ñu ñew délégation bu am solo dañ bi it wax dëgg yàlla waa Kaolack yabal ñu ñun ñu ñew donte ñu ci waccay barax lu baax waaye bis bi di sunu bis di bisu uh, sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh noonu daal waxtu yàlla lañ ñëwee ànd ceeg mbégte bu baax ndax biñ ñëwee eh, délégué commission organisation bi dalal nañ ñu ak yi bi ñëw nañ fii wax dëgg yàlla li war ci ñun ñëpp boo ak léegi noo noo ci noo ci màggal gi daal eh, sant nañ bu baax it nag ci dalal gi xam ne daal bis bi nun Kaolack gépp dañoo waroon laxasaayu ñëw nekk ca togg yaag comme ni ko ni ngeen koy defee Taïf euh, donte daa nekk fii rek waaye ñun ñoo ci bokk wàccuwaay. noonu ñu ko doxalee rek ci événement màggal gi ba tey ñu fàttali ne ñu ngi ci yi nga xamante ni ñoo ñëw cheikh fédération bi waaye tamit ñu ñëw ci màggalu Taïf gi 11 mars gi tey nag ñu ngi fii section bi nga xam ne section Diourbel bi jàkkaarloo ki nga xamante mooy ki nga xamante ni mooy président section bi waaye dañuy wéyee liggéey bi rek jox ko mu daal di présenté wu. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu. te di leen siyaare ci bés bu tedd bi nga xam ne moo nu fi tax a ñëw te fekk leen fi moom mooy nun waa njaareem ki jiite liggéey bi di man mi di wax ak yéen di Mouhamadou Ndiaye daayira lañ koy wax li tax ñu naan ko Mouhamadou Ndiaye daayira mooy Serigne Cheikh ba muy sos daayira njaareem la ko sose fin 64 lañ doonoon président daayira njaareem ba tey jii toog di wax dafa naa ne juróom fukki at yu tegal na ñett kon bu ñu toogee ba tey ñu ñëw ci bis boo xam ne bésub Serigne Cheikh la defe naa ne war na noo xam ne li lu tax a jóg xam nañu lu mu doon. jërëjëf ku baax ki comme noonu ko dégg rek mooy président bi nga xam mooy section Diourbel bi waaye tamit dañuy dikk ci ñaareelu ponk muy deuxième question bi ndaka lañ préparé màggal ak ban lañ ci am ak euh, lañ ko bëggee woon ci li nga xam ne mooy ñëw ci section Taïf bi fekk ci màggal 11 mars gi di koy defal Serigne xanaa sant yàlla bu baax nag tey am mbégte. ci bi nu waté bés bi yalla dimbalé nu mu soso fa suñu dëkk mu soso fa suñu dëkk di njaareem sëriñ Cheikh fonkon ko lool nekk fa lu dul jeex lu bare bare bare nu tok ba tay gi ñu ne tay gi dañuy yéssalat bésub sëriñ Cheikh te nekkatu fi nan doon ande ak mom bam fi ne tay lañ ko gëna bëgg tay lañ gëna ande ak mom nona ndax and ga modi lam te teew ci sunu karam dina ko sant ñu di def tay gi dañ ko gëna japp tay lañ ko gëna a fonk tey la ñu nekk ci digalal Serigne Cheikh def na waxoon ne na ngeen and ngir yalla na ngeen jappante ngir yalla na ngeen bëggante ngir yalla lool day su ngeen ko defee dama xol yoon yi gëna a gaaw waya yeggal nit ci suñu borom te yoon yi yaatoo ni bi daayira gën ci gaaw daayira nak moy li ma leen wax ñu and ngir yalla bëggante ngir yalla di dimbalante ngir yalla kenn ku ci am yitte na ngeen bayyi seen yitte yeen ñepp and ci yitte koka bo yitte koka yegg ngeen soga delu wat ci seen yitte yitte ja nak bu fekkee ne wërs nga koy def te la ngeen dajale mënu ko na ngeen seet la ngeen ma fa dajale doon ngeen war bokku ko ngeen faje ko yitte joojee te and ñew ndax mbolo bi rek la soxla kon bu ñu toogee tay gi bo ñu jël bisub maam Serigne Cheikh Mbacke gayne Fatma boole ko Serigne Mbacke soxna loo ñu bokk benn bés bi may nu fekkeek tal ba nu mën a jóg jël suñuy jëm ak suñu wërsëg ànd ak suñu njaboot ñëw fii ci Taïf fas yéene màggal guddi gi ak bëccëg bi ci jëmmi Serigne Cheikh ak sëñ Mbacke loolu noo ngi sant bu baax a baax di ñaan sëñ Abdourahmane mi jiite liggéey bi toogal fi Serigne Cheikh yàlla yàggal ko fi lool ñu ànd ak moom ba lépp lu desoon ci lu ñu war a def muy sëñ Abdou Fata wala sëñ Mbacke wala sëñ Cheikh lu mu mébétoon tey defagu ko yalla na yalla may mu man ko def te and ko ak mom no ngi len di sant nak yeen xalé yi nga xamne ne yéen ak jamono ji muy ndigalel Serigne Cheikh de wilaya wilaya kat ba ko suñ mbàkke santaane xamuñu woon sax lu ko tax jog jóg tay defena ne ku ne xamna li tax wilaya jog ñoy taxaw magni ñoy taxaw besi ñoy taxaw liggey bi lolé mag ñu def ñokoy koy def lañ waroon a saytu ci si def kon suñ mbacke jaaraama suñ mbacke suñ mbacke xamna na tay xam na ëllëg teg len ci yor wa ngeen fekk nu ci nun ñi mag ñi kon nun war na no sant nu nga xamne no ngi ta fekke wat nañu fekke tay te xamne ne njëriñu aduna ak àllaaxira nak mu ngi lepp ci jëfe ndigal ndigal rek moy li am solo ko xamne alku ga ka gëna alku di iblis xam ngeen la ko ko moy ñak nangu ndigal kon nun bi nu yàlla tënkee ci digal saxal nu ci liggéey loonu ci no ngi sant bu baax tay ñaan bes bi nga xamne moy bes bi luñ ci fas te bëgg ko ci yàlla ko ci yàlla defal mu dëppoog di welal Serigne Cheikh dëppoog lu Serigne Cheikh bëggoon ak lu Serigne Mbacke bëggoon. rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di sant yàlla bu baax bi ñu ñu fekke te euh, mu mel ni bis bii tey di bisu Serigne Cheikh Mbacke ak bisu Serigne Mbacke Mohamed day bis boo xam ne ku yàlla baax nga fekke ko war ngaa sant yàlla bu baax a baax. ndax dañuy ñaari jàmbaar yoo xam ne lu def ci àdduna rek def nañ ko fi Serigne Cheikh mi nga xam ne moo formé fédération bi Eh, di fédération rek groupement religieux équité disposition disponible Bamba Ahmed Bamba amoo ken ko loko meuna fayé su dul ñaanal ko sun borom fayal ko bopam ndax lim fi andi don lo xamné aduna bép man la ci cee kon su bisam ñëwee tay nun wa mbacké dañ ci dégg lool sant ci yalla lool suñu xolit xaw ci jeexit nak ndax jëm ju mel nonu suñu ko ñaké dana am lu bare bare bare bare lo xam day fën ci ñoom ndax jafé jafé yi ne ci aduna bi su fekkon déggoon na njàngale Serigne Cheikh ba nag ni yooyu day jeex tak dara dootu ci am kon foofu dañ ciy xalaat suñu xol jeex fi ñu santit Serigne Mbacké Mouhamed mi nga xam ne moo fi indi wilaya ndax it wilaya di boo xam ne dañ koo tegoon ci ko fédération bi ñu ciy dox ba nëgë ni kon noonu ngi sant bu baax di sant euh, ñi nga xam ne mooy section tay bi organisé bis bii tey di ñaanit organisation bi yàlla na yàgg seen loxo te ñun ñëpp ñu fekke ko na leen daal kàddu yi yëpp kàddu yu mbégte la kàddu yu sant waaye nag kàddu yu xol boo xam ne naa jeex waaye li ko jeexalit suñu borom moo ko dogal waaye du doomu aadama muy dem ñaari jëmm yooyu suñu sañoon dañ fiy toog ba àdduna tukki ndax seen njëriñ àdduna xaj na ci ñëpp kon daal noo ngi sant di gërëm di wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngi ziar bu baax di nuyu mbooleem dëkk bu tedd bi ñuy fekk si di Taïf Mbakke di nuyu Cheikh Abdourahmane nga xam ne moo fi xalifa Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak mbooleem njaboot gi yëpp rek di nuyu bi xanaa di jiital Serigne nga xam mooy président section ak mbooleem section bi yëpp rek di wax ne ñu tudd Xaadim bokk wilaaya bu Louga section bi di indi york section bi ci yital seen xaadim Mbàkke mohammed ak mboolem section bi ni kanti ko xex di adulte bi di wilaya fa ak jeune di wax ni rek euh, bis bi dañ ci ñew ngir war ci ñew xeyna ci liñ ko waxe rek ñett ñi ñi fàttaliku wala bok kilifa yi ci fàttaliku ko ci gën la ñoo di seigne Cheikh Ahmadou Mbacke fa nga xam bi nga xamne ne moo ñu taxa doon lu wax ñoom doon moy ki ko fondé tayit amone ay gis-gis ju yaatu ci réew mi nga xam ne bu dul woon sax lim doon ci ñun daa war a ñu koy fàttaliku ndax taxawinam ci ci biir Sénégal gi yëpp waaye seen sëñ Mbàkke Mouhamed it nga xam ne moo ñu boole ci yëf yi ak Cheikh Abdou Fatah ñu ñaan ak mboolem njaboot bi suñu borom doon seen leer yëg biñ ci am weesuwut yëg ne li nga xam ne moom la sëriñ bi doon wax ci xal bu kaaw di wax ne am na ci jëmm yoo xam buñ fàddoo suuf da leen jooy asamaan leen jooy yi nag dañ cee bokk nit nag bu demee ba suuf ak asamaan di ko jooy ngir ak njëriñam ba sakkatuma ak doomu aadama comme moom nga xam ne moo ëpp lu mu jariñ ci moom yëg-yëg bi nag weesuwut xam ne rek ku ci ne war ngaa góorgóorlu ci ñun xam ne bu la yàlla tànnalee kilifa goo xam mate na ko mel nii ba bisam bu delsee fépp ci àdduna yëg na delsi na ndax taxawaay bi mu amoon kon képp ku aju ci moom rek mbaa kuy wuyoo ci jëm ci këram ku ne war ngaa gën a mën a laxasaay yu gën a bi ci xam ne mission bi mu amoon waru ko wàcc ñun ndax ndigal day leen jóge suñu borom wàcc moom wàcc ñun moom nag am coo doxin boo xam ne ku ne mën caa jàng ba mën a góorgóorlu loolu moo ci yëg buñ ci am li ne war ngaa góorgóorlu jéem a moom ci jëfam yooyu ngeen hmm. wax ni leen rek yëg ci bis bi nga xam ne dañ ciy fàttaliku Serigne Cheikh. Mhm. mboolem njabootam bi jiitu bi jëm. ngeen wane ci seen yëg-yëg. Mhm. it yan ngeen def ci ñooñu ñoo xam ne ñu fàttali. Mhm. ci diir bu gàtt rek nga tënkal ci. waaw xam naa lu jiitu mooy sant yàlla bu baax. subhaanahu wa taala di jullit Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. di sant jàmbaar islam Cheikhuna al Karim Cheikh Ahmadou Bamba. di jaajëfal bu baax Cheikh Moustapha al Karim radiyallahu taala anhu waaye tey sant nag sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi nu ci boole ndax li ñuy yëg noonu mooy lu jiin njaagate mooy njaag ndax lii am bu ko sosul woon xelum doomu adama du màcc ci sos lu mel nii àdduna yàgg na fi lool kon sant sëriñ Cheikh bu baax day war ca di ko delloo njukkal yëg-yëg bi nu am ci bis bi nag ñun section Thiès saa yun ci ñëw dañuy yëgaat ne sëriñ Cheikh ngi jamono waaw maanaam de day day bees tàq ci noonu nu yëg ngi jamono pas-pas boobu lañuy am ba tax ñuy ñëwee ni ñuy ñëwee ci section Taïf ba noppi nag section Taïf di section boo xam ni euh, moo section Thiès dañoo seexale seen bopp mooy lu jafee gis ci yeneen section yi naam ci section yëpp benn lañu ci ndigalu Serigne Cheikh rek la ñuy yëngu waaye ñoom dañoo bokki bëgg-bëgg lool lool lool te yoo ca seeni xol yoo moo tax ñu ànde noonu bis bee ñuy defal soxna maam ma ca Thiès to ren jii ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bii euh, ni ci section Taïf di ñëwee benn section du ko ci teewe moo waral noonu tam yëg-yëg bi ñuy amaat ci teef duñ ko amee ci benn dëkk waaye nag bis bi nag day bisub sëriñ Cheikh di bisub ku sëriñ Cheikh jaboote te nga jiitu ñu leen ciy ñaanal yàlla yàlla doolu leen ci tawfeex bu baax waaye wàllu ko nag bépp jul bu musa faatu yalla na nga yëg di bisub sëriñ Cheikh bi lu yees la ci yow ciy xéewal ci barke borom Tuubaa loolu lañ